طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع ñu ngi lay jaale li nga xamante ni moom la ñu bokk du ma ni délégué du ma ni Baye Zall mais tey Faramareen ñëpp ñu am na xam muy seen frère bi nga xam ni ñoo ko jógee. waaw ñoo ngi ñuy siyaar yëpp di di def siyaar yooyu di yokk si Mouhamad di ñaan suñu borom yàggal ko tam wér mën naa ñu xam. Seexul Xadiim matale ko ñu koy yeggee ci yeneen këru tarixa diine yëpp di ñaan suñu borom yàggal la dafay ñu xew-xew bi magam nga xam ne moo di xalifa papaam ak waajurum bu jigéen di seen taaw génn àdduna ñu ngi fi tey indi suñu njaal indi waale njaalu président balaa mu set parce que actuellement fekk au Sénégal. ndax ngi woon États-Unis teewul waaye mel na ni teew nañ Omaro gis ngeen mhm. man tamit ñëw na ak Thierno Gadiaga mhm. donc ñu soutenir suñu suñu lu jàppale ko ci métti bi ndax métti na mhm. waaw Baye bu baax la vraiment man liggéeyam daal ku ko yeb daal da nga koo fekk muy nelaw ndax nee na xam ne cadre liggéeyam la moom daf koy respecté ba mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk vraiment te it bi mu ñëwee ci waali ba léegi vraiment gisuma lu ñaaw lu mu def. Mhm. dafa gën a yokk waaye wàññiwul. Mhm. ndax loolu la ñuy séntu ci ay nit. Mhm. boo ci bërëb da ngay yokk waaye bul wàññi. bu la kenn di séntu jàll xaj fekk na te mu nekkul nit ku baax la nit ku oyof muy def la nag. waaye boo ko xool sa yëw yu baax du ko talasoon ndax liggéey. ñu koy jaajëfal bu baax a baax baax di ko bokkal moom naqar bi ndax ñëw ñëpp am naqar ñu gis bi di amee vraiment depuis armeel yi a ngi ànd ak moom seetaanoo leen ko benn émission waaw sëñ bu nit ñi wut alal leen wut nit yi ëllëg nit ñi rek la mën a jël kenn du ko lekk mhm. ah mhm. kon lii lañ koy lii lañ koy doyee mhm. ndax su fekkee ne da ngay nekk tamit sax ngeen nekk ci bànneex mu am euh, naqar boo fa teewul day mel ne yow déjà nit tax ñu teew fi ah, ñu waroon a ñëw it bëri nañ xañ ñu ngi ci yoon bi di ñëw ci mel ne soxna ay dara dina ñëw léegi incha allah moom jaale si jaale si waa leen borom këram di waa leen donc mooy mooy mooy mooy loo xam ne daal suñu suñu mbir la ndax képp koo ko xam ne faramaay njaay bu amee jafe-jafe jafe-jafe vraiment yëpp ñuy bànneex nag di di mbégte waaw mhm. ñuy bànneex di naqar mhm. kon bu ñu amee lu mel nii ñu rafet ñu ñëpp kon sol suñu daal ñëw teew mhm. donte waal ñëpp suñu teew teewaale ko par rapport ak événement yi di xew nii dese yi nga xam ne day am biir format ren lépp ginnaaw yàlla euh, ndax du xaw a euh, wàññi ci seen courage dara wala non ki génn àdduna daa nekk format rakkam mooy liggéey format rek at at loolu dara yàlla ngay moo ne ku nekk ni nga war a faatoo noonu la rek di dal waal yi jiwoon na juddoom jiwoon na juddu juddu papa coono ñu maa jaaga woon ni ngeen faatoo loolu dara tey lan ngay wax ci kàddu Wally Ballago Seck waaw mu ngi yëkkati njaalam di ko teg ci loxo sëñ Sadio bi nga xam ne mooy mooy employé di ak moom di nekk nekk tamit bu am yar nekk tamit bu respecté Wally ah parce que boo demee studio boo xoolaatee studio bi ñu ko Baye Zane liggéeyee da xam ne kii ku am ambition la ci liggéey dëgg yàlla ndax am ambition ci da ngay xool ay bëgg-bëggam xool li koy avancé lool xool li koy yitteel nga cay nekk te man wax dëgg yàlla nag ku dee ñu ber la man ci loolu laa ko gis déggu ma benn yoon euh, ñu ni Baye Zane ma ngay def ñàkk ñëw kër Waly wala ma ngay def Baye liggéey def na fii lii def na fii lii jërëjëf di wax inna lillahi di sant yàlla julli ci yàlla Muhammad mais di ko jaale d'abord Omaro mais di ko jaale Baye Zala di wax ni euh, mag mooy ndey Baye Zala dafa ñàkk ñàkkul woon ndey mi ngi koy door a ñàkk parce que magam ji nga xamante ni moo dem bi yàlla dogalee ñu bokk nekk ci kër gi fii eh, ànd ak ku mel ni Sidi Diop ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen macha allahu taala dund nañ fi dund boo xamante ni sii soo ko xoolee ci toogaayam ak taxawaayam da ngay xam ni kii jaboot la kon li tax man la Baye Sall mi ngi door a ñàkk yaay mooy magam ji nga xamante ni si moo dem dafa am fu mu ko féete woon Omaro li muy wax dëgg la xanaa xamoon ni nettali bi ci gën a neex mooy laaj ki nga xamante ni moo fekke woon yëf ya mais Baye li ma koy ñaan rek mooy yàlla ko yàlla sàmm mais di ko jaalee jaale Wally ko Seck di ko ñaanal moom it mucc ak xéewal gu bari fii mu jëm na leer nañ ci darajey Seydina Muhammad di sant ñëpp di gërëm ñëpp xam nga tey dañu nekk ci naqar boo xamante ni si lu bari war nañ ko wax mais am na loo xam munu ñu ko wax parce que seede yiñ ciy def mënuñu ci bañ a seede lu dul xam ni seenu dans ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñun ay jullit lañu duñu ay chrétien dëkkuñu Gàmbi dëkkuñu Fongola ngi fii la ñu dëkk ci Sénégal kon bu kenn amee naqar ñun ñëpp ñoo koy bokk affaire showbiz nag bu ci amee lu mën a am mooy dañ koy teg fee jaale suñu sœur jaale li ñu bokk ci li nga xamante ni si tey ku ci mel ni Omaro Wally Balago Seck ak euh, délégué Amar ñoom ñëpp gis naa leen fi te lii mooy àdduna kon li ñuy def mooy dañ koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana te mu gëj fii ci barke yontu yàlla Muhammad may encouragé Baye Sall nag bu baax te di ko di ko di ko sant bu baax di ko gërëm ndax gaynde la borom fit la borom jom la jàmbaar la te li ma gën a neex ci moom mooy Baye ak lu mu mën a dugg lu ma mën a def ci àdduna bu ndigalul waajuram jotee c'est fini mënatoo am Baye te loolu mooy nit Serigne Cheikh Tidiane Sy daf daan wax ni ku amul kilifa junne mooy doon sa kilifa te ku junne doon sa kilifa day taal sa kër kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci yàlla sunu boroom euh, lii fi am yàlla na fi géej ci barke yonent bi jërëjëf merci طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا